ñun ñëpp seen doom ki nga xam ne moo di Doudou Fall daal di rek wàññeeku ci euh, problème yi nga xam ne amoon na démb fii ci buntu Nayda bi tey a xol bu fees quoi Doudou Fall ñi xamoon nañu fu ma fé fu ma féetewoon ci man. comme li gaa yi wax rek léegi bu nekkoon nervi la xanaa man mii nervi parce que man maa ngi foofu taxaw di défendre sama maire mhm. li ñuy wax ci ne loolu dara amu ci aussi tam di leen di leen leeralal am na loo xam ne gars yi duñ ko fàtte wax équipe mhm. santé bi ñu ko yóbbu woon ñoom boo ñëw di ñaan la ndax Sonko nga bokk bu nekkee ci Sonko nga bokk ñu jël bu nekkee feneen nga bokk ñu bàyyi la noonu loolu aussi gars yi ko fàtte ko fàtte il faut ko loolu loolu moo dul benn yoon loolu moo dul benn yoon parce que yaakaar sam sami lañu wax sami sami la ñu wax parce que bu ko fa yóbboo nee nañu Sonko dafa fay lépp xam ku dul Sonko moom la ñuy jël ba pare donc mën na am li tax mu dem loolu ci la bokk lenteur boobu lenteur boobu ci la bokk di wax ñi fa nekkoon démb ñëpp ay doomu Medina lañu Doudou Fall ku ko xam-xam ni Bamba Fall la Doudou Fall nitu Bamba Fall dafa bokk ci Bamba Fall man de mën naa ne mën naa ne Doudou Fall balaa Bamba Fall ma élément bu mel ni Doudou Fall dina métti lool lool lool lool lool di ko ñaan mooy mooy docteur terrain jaraaf mooy yore télévision bi suñu seen naataangoo la yaa ngi koy wax léegi seen naataangoo la kooku du nervi di wax tamit waa wal fajiri li am démb yëpp ñoom la li am démb yëpp ñoom la di woote naan ay nervi la Bamba Fall teg ko amul dara man maa ngi nii pa pa laa te dama demoon taxaw pour défendre sa maire est-ce que man nervi laa est-ce que nervi laa damay damay défendre sama sama mairie te loolu doomu bi laa yow def démb donc dañuy nit ñi nañ médias yi nañuy xam li ñuy wax di fi am yëpp démb man wal fajil dama leen di blâmer xol bi nag fees na dara mën wax parce que boo waxee sax nga wax leneen lu ëpp ëpp di di jamale kàddu fi rek kontaan trop ci quoi am naa am naa nag lu ma metti trop trop trop mais dañ koy bàyyi lépp nag si lox si loxo yàlla parce que comme yàlla dafa nekk ku lu nax sin saa yax sin xoto rek bakkan bu mas tund rek mais mais vraiment métti na trop xaw ma sax nu may wax parce que sama xol dafa fees quoi mënu ma wax parce que lii ku ma ko waxoon du ma gëm quoi parce que man déjà man maa ngi woon foofu démb mais gis nga Sénégal ah, def très attention quoi parce que tey am na loo xam ne nii mi ngi am ñu koy ñu koy balbalal wallaahi fu mu jëm dana dana dana rey ñëpp parce que tey man dama toog dégg ñu naan ay nervi ñoo la baa mu faa recruter man maa ngi fa woon démb barke Seydina Mouhamed man bàyyi laay te conseil municipal laa man billaahi wallaahi taala amul nervi ay booy Médina ay ay agent maire yi ñoo fa nekkoon di défendre seen seen seen ngox cest à bu fekkee nag yow da nga toog sa télé di wax lu la wóorul te dara du la si fekk kon fan si ban dëkk la ne si ban dëkk jarul ngay toog sa tere nga ne ba Bamba Fall ay nervi la àndal waaw mais léegi yow nervi yooyu bu fekkee ni yow bu fekkee kooku waxu woon loolu est-ce que booy dinañ ñëw foofu di attaqué am na loo xam ne ñoom am na si part de responsabilité bu rëy rëy rëy te wallaahi barke rasulullaahi ku yaakaar ne yow doo dee billaahi yaa ngi nax sa bopp gars ëllëg am na de dee dafa am te yaa ngi waxal nit di ko sosal ba ñu rey ko billaahi yow complice nga beneen bi mooy euh, mooy waa sami waa sami municipal gis nga waa gis nga am na loo xam ne dafa ñaaw sax parce que tey bu dee yow da nga waat ne da nga yow da nga ñëw pour def kaaraange nit yow nan la nit ñu koy indee nga koy négliger négligence mooy du fa démb lañ ko bu démb waroon ñu yow ñu jël scanner bi scanner bi def nañ ko depuis démb nga ne nga war nañ ko opérer waaw yow lu tax nga opérer ko ba pare dañuy indi nga naan fa la bokk waaye léegi yow la fa la mais bu fekkee sax bu fekkee man sama structure la maa ko moom sama clinique la maa ko moom Sonko laa àndal waruma jam dama war a yemale Sonko ñëpp parce que dama waat ne bu nit ñëwee dama koy sauver am na loo xam dafa ñaaw nag quoi man tam beneen bi si yéen laa koy laa koy adressé quoi surtout les les sites ngir yàlla war a sóor am na loo xam ne billaahi defarul de day yàq parce que tey man dama dama dama dama am ku nekk di ma woo naa man te afam benn nit bu gaañu man Doudou Fall maa ko yar. xam naa Doudou Fall bu baax a baax a baax. ASC bi ASC Déggo man loolu naa ko sànq ASC Déggo amul lu mu deful fu ne ànd ne ko maax moom fu ne man 2018 ba léegi maay maay président ASC mais moom mooy trésorier def tey su ma su ma kan aw tey pour ma décaissé sax pour pour pour dem jëli xaalis mënu ma ko parce que moom mooy moom moo doon signé maax moom ñoo doon signé xam nga loolu dafa metti tey benn xale bu ndaw boo xam ne nii ah. di mais vraiment maa ngi masawu maa ngi masawu ñëpp parce que parce que su ma waxee sax mu naa wax lu ëpp. maa ngi masawu maa ngi masawu ASC déggoo bi yëpp <coughs> di masawu maire surtout maire du fal man ADT laa bokk ana defar cëriñ tey bu ñu demee ba am accrochement ak maire moom ak Saliou Ndiaye si jouer bu rëy rëy rëy moom Ndiaye parce que tey bu ñu demee ba am lu mu jege maire am na lu mu si rëy comment am na lu si jouer quoi. vraiment di ko jaal waa Medina bi yëpp parce que tey man man xam naa ne du faal ni mu meloon ndax Medina bi yëpp ñëpp la amaloon jàmm tout le monde kon ñun ñoo ñàkk ko maa ngi koy jaal ASC bi di ko jaal waa Medina bi yëpp quoi vraiment. balaa ngaa tëj ko ginnaaw bi ngeen ko yóbbee fi nga xamante ni leen laajee fan la bokk bi ngeen ko ne euh, ci Bamba Fall la bokk wala si keneen dañoo wax ne duñ ko laal wala. non waxuma duñ ko laal de c'est-à-dire xam nga tey médecin. Mm. yow nan lañu indi nga naa fa la bokk. par yow juboo si le yow bëgg yow bëggoo si lu baax sa métier la day mel ni ma indi koon feneen rek man ku man tay sama client dina ñëw man kan yow fa nga bok mais nan won deug nan la nit di ñëwee si si hôpital nga kan, kaan wala clinique nga naan kaan fan nga bok déjà lolu sax c'est c'est c'est inadmissible am amna lo xam dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw parce que tay je vous dis une chose hein gis nga ñu ngi bal bal lo xam ne billahi wallahi taala mën na fi indi affaire bu graw wallahi barke rasulaay parce que tey euh, euh, tey am na loo xam ne nii euh, bu fekkee am na dañ koy sant yàlla parce que peut-être ñun ñooy sonn rek tey du faal tey bu ñu ko sànni woon xeer sax tey bis bi du ko weesu parce que ba muy judd la yàlla dundam la bindoon kañ lay gaanu mais dafa fu mu ko jaarale commandement mais lépp na rafet rek cest à booy wax avant ngay wax xamal li ngay wax parce que tey yow mënoo ñëw pour pour yow pour jaay sa pour pour am ay vues dafa jar ngay wax lu dul dëgg après ëllëg yaa koy lay wax yàlla c'est non c'est grave quoi. waaw tout d'abord di nuyu ñëpp euh, di masawu ñëpp tamit parce que euh, nouvelle la boo xam ne man daf ma bett waaw daf ma fekk may liggéey xool sama téléphone gis statut yeeg yooyu waaw mu doon affaire boo xam ne métti na ma trop moo taxoon ma ne il ma déplacé wu tey euh, témoigner témoigner sama sympathie ak ñaanal waa kër gi surtout pour ñu am muñ waaw parce que Doudou Fall moom suñu rakk la ñun ñëpp ñëw bokk Médina bi xam nga euh, man moom euh, grand na nga def euh, sama waa ji def xam nga toog waxtaan loolu lañu ñu sekkoon daal jàmm rek la ñu sekkoon moo tax tey la doon rafet ni ñëw fii tey xool famille bi ba pare xool tamit loolu fi waroon tey waaw donc man damay wax ñu dal rek parce que yenn agitation yenn violence yi pour man réglé wul lu bëri réglé lu bëri dama bëgg jeunesse bi dal bu ma sañoon dañuy toog di waxtaan parce que ñun ñëpp benn lañ à la fin de la journée boo xoolee Gibraltar euh, Kusum Ngara ñun ñooy daje ci genre événement yi donc bu ñu naree liggéey suñu gox tam ñu ñoo war a toog waxtaan pour euh, pour xool lan moo gën si Médina am ñu def ko mais pour man euh, violence bi réglé wul problème bi agitation bi réglé wul problème yi nañu nañu japp rek ba paré ku nekk di déglu sa morom pour ñu mëna am benn solution à la fin de la journée c'est vrai que métti na doy na ku nekk mi ngi xëc sa côté mais gëm naa ni bu ñu toogee waxtaan ci li ñuy gën a mën a am jàmm loolu daal lay lay conseiller xale waaw waaw man man man li may wax au-delà d'être conseil municipal ki gaañu c'est un cousin direct c'est mon sang te je pense que Doudou Fall comme ni ko Baytir waxee léegi depuis des années si équipe bi ñu bokk muy Dego. j'étais le président de la commission des finances moo nekkoon trésorier C'est ni ñi fi taxaw ni les anciens présidents ñi ngi Donc taxaw donc on mën nañu lool. Lool moy ben benen bi ci téggu. ku ko xam-xam né c'est un vraiment c'est un défenseur limu bok bokk kenn du ko yaax. muy déggoo muy lénen ak lénen ak leneen yàlla moo ko bindee mais ñi wax né rek li xew nak man ci être direct c'est Moustapha Diop Fadjiri. moom mo taxaw ne Médina nervi yi ñu ngi fa tey xale bi bu deewee Moustapha Diop moo ko rey parce que moom moo taxaw ci télé bi les vidéos son là ne Médina nervi yi ngi ñëw nit ñi ngi jël photo des fis fils de la Médina ñu fi dëkk bind seen yi ay nervi pour sànni ko donc am na si ñu bari ñu ngi nii te Médina la ñu dëkk ñu naan ay nervi fii nervi amu fi dara amu fi vous savez parce que ñëpp gis nañ ñu nekkoon sur le terrain di combattre maintenant loolu tey nag bésu kii la mais Moustapha Diop man maa ko wax moom moo rey booy bi moom moo ko rey kenn reyu ko waaw te moom ay mbiram moom dina ñëw après ci kanam lu ko neex nag na def. tristesse parce que tam aussi ñun ay doomu Médina lañ mais ay doomu penc lañ je crois que bu ñu taxawee nag di gis ñuy accusé de nervis surtout dafay xaw a désolant euh, te ñun comme ni ko président waxee sànq ñun ñëpp vie associative dañ ko dañ ko rampe jaar déggoo je suis le délégué sportif de la CDECO Et je te prends à témoin, yow mii tey jii nii interviewé tu as été mon président commission sportive Baba Ndiaye. donc au carré, il a été le trésorier ba c'est le trésorier de la zone. donc d'où Fall moom au-delà de de de d'être un membre de, du mouvement navétane déjà euh, c'est un homme de médias lii def da def c'est un homme de médias euh, Medina Nouvelle TV bi nga xamante donc mom moy presque pratiquement l'initiateur mm. donc kon kooku def naa ne joué na rôle bu bari boobu am solo ci mbir mm. donc lu mel non nak je crois que suñu nekkee ci ben ci ben entité muy politique mm. su fekkon tey dañu am ben dañu doon liggéey ci ben société ben ben usine de glace ou de poissonnerie wala yoy non mais suñu wàccee ñu ñibi suñu kër patron bi di xeer ak wa koñom wala wa kërëm mais ñun suñu yoon mais politique la ñu nekk

lii fa laa ko jëlee sama loxo bi gisee bool xool yi seenu mel dama war def rajo mais j'ai non c'est pas grave mais li ma métti ci mbir bi xam nga lan la waa Médina ñoo doon xeex ak waa échange donc du kaaw mambay ñaaw Sonko u Bamba ñun dañu nangu ne ay góor pire yu dëkk biir Médina ñoo wan ginnaaw Bamba ne ko àndu ñoo ko yow c'est leur droit c'est ça la politique mais ay góor pire aussi dëkk fii ñoo ñëw taxaw ne ñoom Bamba moo leen doy

bañ ñu taal seen maire parce que gis nañ ko fi gis nañ ay maire ñu saccagé gis nañ ay maire ñu taal tout temps ay manifestation ñu gis ko mais dañ ne maire bi tant que ñun ñu ngi fi kenn ko taal suñu bakken la ñuy ñu dee par benn benn bu mu jeex tak mais yàlla nag mu ñuy sutoral saa bu kenn dee ba mu gañ baa ñu fekk hôpital dañ xam c'est un agent du mairie mambay avé avé avé tous les avec tous les risques ay agent municipal lañ ñëpp donc arrêtez de de de de di wax ay nervi ay yéen da ngeen ci am part bu am solo yéen presse bi yéen kenn mënu leen dicter yéen kenn mënu leen wax li ngeen ni wax wala li ngeen dul li ngeen ni def vous êtes indépendant parce que yéen yéen yéenay taal dëkk yéenay defal dëkk Mo tax souvent dañ leen war baax sen te ay bakkan ngeen def ci ceytu ba gis ne kat amna ci ay bons journalistes man gis na ci ñoo xam ne ci campagne bi passé ànd nañu ak Bamba sax xam naa ne Medina lañ dëkk mais liggéey bu rafet lañ doon def.

Vous ñu demee ñun dañuy tourner bu c'est des Médinois qui se tournent le je donne un exemple amul benn magasin bu magasin daj gars ay le pour appeler magasin Vous wax nervi nañ ko xool ci ñoom ñoom ñooy wàccee ay ay nit ci ci pour ñu après dem jeune ñun on avait pas compris Mon benn magasin ubbiwul ba ñoom ñu dawaat mais finalement xam nga la la mujjee ñoom ñoo génn les commerçant a commerçant ak ñenn doomu Médina yi di xeex ak ñun ñun cible la ñuy mujj nekk ñun dañuy nekk en danger dañuy dem ba bu ñu génnee pour liggéey sax suñu waa kër yi seen xel du dal suñuy waa kër yi seen xel du dal ku nekk hôpital urgence sa bopp bi nii bopp ba léegi mënuñu ko xool bañ koy évacuer di ko indi transport. démb war nañ ko xool d'après li ñu jàngat.